yéen li ngeen di def ñu te duñu mës a jég de jéggal leen ñu waay la ila la ila ila la sëriñ si jéggal leen ñu la ila ila la la ila ila la la ila ila jéggal leen ñu jéggal leen ñu ñun de sonn nañ fem ne dañoo bëgg a gañde jégal leen ñu rey ngeen gëlem rey ngeen bottu gañe wuñu ne ñun de dañoo sonn jégal leen ñu jégal leen ñu jégal leen ñu dañoo bëgg a gañ fem ne ñun de dañoo sonn jégal leen woya boo jéggale ñoo génne leen ci génne leen ci seeni loxo jigu leen ñooy jigu leen ñu du ngeen ñu mas a jig jigu leen ñoo yéen sëriñu Sénégal yee jigu leen ñoo woy génn leen si génn leen see raxasul leen see génn leen ci football be jigu leen ñoo rey ngeen gëlem rey ngeen mbotte gañe wuñu ñu masa gàññe fekke génneew leen ci fekk génneew leen ci seeni loxo jigu leen ñoo génn leen ci génn leen ci génn leen ci rey ngeen gëlëm rey ngeen gaynde gàññeewuñu génn leen ci jigu leen ñoo yéena ñuy barke yàlla yéena ñuy hum caaxaanuma yéen yéena ñuy hum de génn leen cee sëriñi Sénégal jéggal leen ñoo bu leen ñu lekkee ba leen suñu gaynde yee jéggal leenoo way jéggal leen ñu jéggal leen ñoo jéggal leen ñoo yéen de ñuy hum de jéggal leen ñoo yéen rey ngeen kelem rey ngeen mbotte gañe huñoo jéggal leen ñu bu leen ñu rey jéggal leen ñu ñun ba ñu bugg a gagner coupe de coupe de monde gagner coupe de monde rek de la ñu bëgg waaye boo jéggal leen ñu bu ñu lekkee kenn mësul leen a gis yéen li lum doo duhu leen sëriñ duhu leen lu kenn xam ngeen di hume barke salaatu fatiha ngeen di hume yéen a ñu hum yéen a ñu hum yéen a ñu toskare ay gaynde lañ yéen a ñu hum de kenn masut leen gis yéen jéggal leen ñoo wooy jéggal leen ñoo li de hëpp na rey ngeen gëlëm rey ngeen mbote du ñu gañe jéggal leen ñu hum ngeen ñoo toskare ngeen ñoo waya boy li kenn masu ko gis jéggal leen ñu jéggal leen ñoo dañoo bëgg a gañe jéggal lañu ñu sonn nañ dañ bëgg a gañe xam nañ kattan man nañ ko yéen ñu xaamee ngeen ñuy hum di ñu toroxal di ñu liggéey di ñu takk di ñu toskare da ngeen xala ko yéen a ñu hum sëriñu Sénégal génn leen ci génn leen ci football be sonn ne ñoo génn leen ci gis ngeen may jooy li du caaxaan génn leen ci football be toroxal ngeen ñoo su toosum yéen du leen sari kenn xamut leen mënu leen dara lu du yàqe génn leen ci génn leen ci génn leen ci yéen ñuy hum kenn leen ci du leen sëriñ ngeen a confuse ñenn ci yéen xiisal ba mel ni golo gu toskare taxaw ak seeni rastaani Bob Marley mu jaale di rey ay kelem di rey ay mbotte di ñu hum rek yéen a ñuy liggéey de yéen ay dëmm ngeen dosum yéen sonn nañ de jéggal leen ñu ba leen ñu rek ñu def li ñu man suñ kàttani yàlla gee tubaab yi sax ba ñuy gañe football soxlawul sëriñ yoo duhu leen sëriñ ay dëmm ngeen yàqkat ngeen fi mu ne noppaliku ngeen toskare ngeen ñoo xat mu nekkee xat mu ne ngeen ñëw rek di ñu toskare fem na ñaan naa leen génn leen cee xumati ngeen ñoo dosum yéen kenn mësu leen a gis yéen dee ngeen ni ngeen ñu liggéeyal ngeen ñuy hum rek xamu leen dara seen gëlëm yi rey ngeen ko te hum nañoo génn leen ci football bi yéen sëriñi Sénégal raxasu leen ci football bi di ñu seetaan fekk defu leen ko du ñu gagné yéen ñuy hum suñu gaynde yi de gaynde leen yéen leen hum fee génnu leen ci duñu gañe yéena ñuy hum génn leen ci football be ñaan naa leen yéen fu ngeen jóge fu ngeen cosaanoo kenn mësul leen gis yéen de humati ngeen ñoo toskare ngeen ñoo tey suma àdduna yàqu na yàqooti na dosum yéen ya ngeen ko fay de da ngeen fay lii de sa ñàkk dana leen dal di ñu liggéey di ñu toskare jéggal leen ñoo jéggal leen ñu jéggal leen bëgg a gagné seeni loxo ci football be génne ci seeni loxo toskare ngeen ñoo yéen sëriñ yi Sénégal yee jéggal leen man de maa dikkaat di wax ne ba tey maa ngi célébrer Sénégal de waaw Sénégal laa célébrer ba tey te man na li ma jaaxal mooy yéen ñi nga xam ne xànduleen ak Sénégal ngeen ne Algérie ngeen xàndaloo jaale yéen Gambien yi xànd ak Algérie xaw ma musiba yéen yéen a naa fekk tan xañaan yéen lu ngeen ci àndeeg naar yuñ jaale yooyu yéen li ci géej génn ci yéen yéen hiye lii xañaan ak suuli rek la anyway jaale nañ leen fi ne ba ngeen ne naar ya ngeen ànd ak du ñun daal di ànd ak naar ya ngir naa fekk te xayaan te naar yooyu nga xam ne bu ñu leen jàppee ñu suuli leen liñ bañee nit ku ñuul te réew te te xamadi ngeen di ànd ak senegal ngir xayaan ànd ak ci bañ sénégalais yëpp def leen seen bopp nit yéen seen xañaan geeg seen toskare gi ëpp na de yéen lii lum doon yéen kuñ ci waaja a jaale fi mu ne Sénégal ngay fajoo jëm Algéria yéen billahi yéen duwul leen nit yéen yéen ñàkk jom ku leen fekk ngeen xëpp ci Facebook bi le ne fet leen ne xëpp xëppaaral di post ay Algérie well done congrats gi ndeysaan Algérie yéen yéen yéen a naa fekk te si butu walla waaye fi mu ne jaale nañ leen gisuleen Algérie benn rekk lañ mën a dugal ñun fi mu ne ba tey fañ winde su ma bët yi ni mu xonqee nii ronkoñ taxu ko xonq de xoor mi ma wax ne moom laay xoor ñaari semaine bu ñu winee Sénégal moo tax fi ne ma tiit ba suma bët yi xonq ñaari semaine laa ne moom laay xoor moom laa moom laa lifi nag suma doom yi moom laa cotisé nag suma doom yi ne leen bu fekkee wiin nañ ñu ñaari semaine laay xoor bu dee wiinuñ ñu ñun ñëw wiin ma yóbbu leen cinéma far nag ñu wiin ñu fi ne ma war a xoor ñaari semaine yi bañ suuli ma moo tax suma bët yi xonq wiin mi taxul de wiin mi naqadiwul ma nag xam naa ñun liñ liñ liñ nit ngay xalaat positif Sénégal dëgg la wiin nañ ñu waaye danañ ñun danañ mas a wiini fu ñu demee ba wiin Nigeria ñun Nigeria sax ñoo leen gën a taraay ñun ñuñ gën a taraay dafa bëri de Nigeria nga xam ne ñoo ñu ëpp fuuf Nigeria ëpp Sénégal téeméeri junni yoon ñu réew yi ñu ëpp yëpp lañ wiin te Sénégal ni mu tuutee Sénégal si réew yu tuuti la bokk de moo ëpp Gambie waaye ci réew yu tuuti la bokk te dafa wiin réew yu bëri fim mu ne nii ñu ñooy second place ci Afrique yëpp ñun ñoo ci second place fi mu ne te te Algérie li ñu winee yi dafa mel ni daanaka du win benn rek lañ ñu winee wan rek lañ mën a dugal wan fa mel ni daanaka du win xamu leen loolu yéen yéen a ñuy xañaane kay yéen ñu sibbutu ñu wanaan ak ah, Algérie la faral faraluma Sénégal te jógee Gambie yéen yéen a xañaan te jaali leen yéen a ñuy xañaane kay waaye Sénégal liñ dem àddina si Afrique yépp gis nañ ko te respect nañ leen Afrique tout respect nañ Sénégalais tey ren gile yéen nag li ma leen di laaj ngeen a sibbutu ba toskare te xalaku ne tot tot jonko ni mbott muñ jaale moo tax ngeen ne duma faral Algérie Sénégal de yéen bu ngeen sibbutoo du Sénégal ngeen di wutee di jaale Algérie ngeen di opéré seen yuur gi yàlla nañ leen ci waaja a ba ngeen dem Sénégal docteur yi péngu leen kaane ñu suuli leen yéen dosum yéen waaye lii lum da yée man bu ma ci docteur yi ma sumaa gis a ñaan gu mel nii sama bët yaa ngi jooy duut wiin mi de yéen gambien yi ma gis ngeen xéppiré ci sama facebook maa ngi ñëw dilit leen yéen ñëpp nag barke salaatu faatiha su ma paree dilit leen yéen ñëpp ngeen génn ci sama facebook bi yéen ku leen mës a gis hii man de man algérien la àndal de algérien kongara gi lay sante yéen naar yuñ jaale yu bañ nit ki ñuul yooyu yéen yéen yéen a rusadi te xañaan te soxot siis te rusadi moo tax ngeen ne xëpp xëppiiral foofu direeku góor yooyu ni yéen yow góor gu ñaaw guñ jaale googu ne suma facebook bu yow moom yéen ñett gis naa leen ngeen di post algérien su may pare ngeen tukk ko sa xaj dem Algérie ñu jaale leen yéen ku leen mës a gis ku leen fekk ngeen di paral naar yuñ jaale yooyu billahi yéen yéen a taala ko meeru ma ngeen leen ñu win de xam naa ne win mi du win benn rek lañ ñu winee du win xam naa ne ñun àddina ci juróom-ñaar ñëw win Afrique yépp ba Algérie yuñ jaale yi la rek te algérien jaale yile benn rekk lañ ñu dugalal loolu du wéen xam naa ne sëñ Touba yeeg sëñ mam mam mam jaara bu sa yeeg di sëriñu baax yi ne Sénégal yëpp te ñaan yu baax ya kare Sénégal xaw ma ndax ñaan yee ñu umam déet xam nga football fa haram yàlla jéggal ñu fi ma xam naa ne football fa haram waaye defal ñu ko rek yàlla <laughs> foogu leen sëñ Touba yeeg dalee ko ca kër Carnoog Medina dëkk ñoom suma yaay ak foogoo sëriñ yi la yëpp ñu naan xaw ma Medina suma maam boobu xaw ma fa daan fa yi woon ba boo ko toggalee la mu jël xeetam wa sëpp ko ca laaba laaba saf foog naa ne barke salaatu fatiha wàlli yi foogoo ñooñu xam nga football fa xaraam ñu ne man de ne ma jaxle ci lii lii du neen foogoo wàlli yu seen ñaan yu baax yee ñu hum yàlla xam naa ne football fa xaraam waaye jéggal fi ne nañ leen ñaan ci wàlli yi xam ne foog naa ne ñooy seen ñaan yee ñu hum ne wàlli yu fañ fañ fañ fañ wàlliwu te Sénégal bari wàlli yu te ngeen wax ay sàbbel ak sibel ak jigéen ji seet ju xeesal jooj ni golo gu toskare ak sëriñ yi seet yépp ñu génn ci football bi xabal ñu foogu leen ñoo ñuy humam dos fum ñii nit <laughs> man suma na dukki na tey walla na sëriñ yi la génn ci football bi le sëriñ yi nañ ci génn rek ak seetlukat yeeg reykati gëlëm yeeg yépp nañ tukku génn ci ah dosum yéen waay xat mu ne ngeen ñëw diree ko gëlëm gi le naar wi la jaan ji le yeew mi le jësit ji buñ ko rayee xorom si buñ ko génne buñ génnee mbott mi le buñ rayee si ndax bi le kal du ko pépé suuf ko de danañ gañe dosum yéen génn leen ci yéen a ñuy hum ah dosum yéen gannaaw tey bu football xamatee ba ngeen dugg ci wax seen jaale sëriñ yi ñu suuli leen yéen sëriñu Sénégal yi dugg ci football bi yëpp laa yéen a ñuy hum génn leen ci dosum yéen génn leen ci rek ku ne góor yi def lañ xam wax naa leen ko nag man maa ngi ni dem nag xuti lu ma fii xale sama xol yi bala maa xam fi mu ne nii la yéen Gambien yi wane Algérie ngeen àndal yéen ku ci feebar Algérie lañ lay opéré ji ñu jaale la ku fa dem Dakar di opéré di wuti opéré danaa wax docteur ñu pengu la ndaw sungu fi kaane ñu suuli la ngeen a xañaanteñ jaale leen ku leen fekk ngeen di faral naar yooyu ngeen a bay sénégalais yéen góor ñu bay sénégalais yëpp ñun ñu dee seeg sénégalais yi leen na naqadi danay seeg sénégalais na bañ suuli leen man fi ne sa jëkkër sénégalais laay hutaat ngeen a yambar te toskare te sénégalais gën leen a jonge gën leen a mën a neexal jigéen gën leen a mën a nangamtaan gën leen a man lu ne moo tax ñu suuli leen banaa leen ak yàlla <laughs>